Alors la parole est à notre collègue Avagnan, qui sera suivi par notre collègue Abdullah Sek. Nous sommes à 33 sur 57. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, maa nous Nui, di nuyu collaborateurs collègue député yi di nuyu collègue presse Monsieur le ministre, je vais voter cette loi, qui est une loi impersonnelle de portée générale. Monsieur le ministre, gouverner, c'est prévoir. Le naa et li xew nous euh, ñu fi jot de jël de te gis-gis show la ñuy de di def waaye mbir dina toll foo xam ne sa bopp mbir dana toll foo xam ne euh, liggéeyal askan bi def si baax mbir dana toll foo xam ne wax li am dafi baax parce que li am soo xoolee dafay mel ne dafa am modification bu am ci article 10 de la constitution bi nga xam ne dafa jox droit nit mu am droit euh, dem def ay marche

kenn ku ci nekk am nga droit nga def marche loolu constitution moo la ko may waaye nag dafa am fu muy yem parce que trop de démocratie c'est c'est le désordre kon monsieur le ministre li nga xam ne tey mooy ay convention yi Sénégal ratifié ci Nations Unies war nañu may quand même mu conforme ci loolu kon liñu fi wax ni defe naa ne du waxu dara mbirum terroriste bo xolé ci sous région bi ñëpp xam gis nañu menace yi am ñu ngi nek un pays qui va vers le pétrole et le gaz kon defe naa ne war nañu organiser lolu pour que li nga xamné yaakar na ne ëlëk dina gàkkal suñu ressources ñu mën ci taxaw piège piratage maritime yi wax nañ ko kooku war nañ conserver quand même nos ressources yi nga xam ne tey ñoo nekk ci biir géej gi kon loolu ça n'a rien avec li ñu xalaat di ko wax population bi di ko wax sénégalais yi ne dañuy wàññi li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef ci jëm ci marché kenn wàññiwu ko yéen a ko moom yéen a ngi koy def te bi ngeen ko defee da def ba léegi defe naa ne amagu leen ci lu leen neex kon nag mën ngeen continuer di ko def te bañ a lëndëmal askan wi quant à troisième mandat defe naa ne du débat fi et c'est très normal dañ leen di comprendre parce que li xew defe naa depuis bobu ba légui ñu ngi gis ay tournée yo xamantene ne macha allah Sénégalais yépp kontaan vers le nord depuis bobu légui amuñu quand même sen sago mais dañ leen di comprendre fa ñu jëm xamnañu ko fa ñu jëm ragaluñu ko parce que li nga xam mom le président di def ci réew mi ñëpp teg ci seen bëtt muy ay réalisation défé na né looloo tax sénégalais yi far ko kon nag monsieur le ministre ñun dinañ voter loi bi parce que biñ fi dalé nek ba légui nek ci mouvance présidentielle lepp luy loi ñu indi ko fi diko voter voté njëriñu sénégalais yi njëru askan wi la té loolu lañu fi nekkee looloo tax ñu jël suñu salaire looloo tax ñu tabbuju kon nak yaakaar naa ne loi bu melni képp kuy sénégalais war nga ci d'accord surtout li nga xam ne moo fi xew te ñëpp gis ko mu nekk loo xamante ne kenn rafetlu ko kon man dem naa bay njottu sax ne ñoom ci seen bopp opposition bi xañ na li fi xew mu metti lool ñu yàq alalu askan bi xanaa ñoom dañ cee nekk li tax ñu bëgguñu loi bi jàll li tax bëgguñu ñu ñu ñu jàppale sénégalais yi ba ñu nekk ci sécurité xanaa ñoom désordre bi am ci réew mi ñoom dañ ci bokk loolu quand ci seeni comportement tey xaw naa ci am xel xel mu ñaaw kon nak nañu ñew te xam li lii ñuy indi fii njëriñu sénégalais la du politique lo xam dañ koy voter tay bayiko fi pour mu jëriñ Sénégal te ñom ñi nga xamante ne dañ fi nekk tay ci opposition bi en 2007 nañu laaj parlementaire yi fi nekkoon ndax loi bi jallu fi won bañ koy voter est-ce que amutoon ay député yi fi nekkoon ci opposition bi 2007 la won lolu fi kon nak je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdoulaye Seck.